ñu ngi ñu ngi d'abord euh, d'abord euh, li may njëkk a jàpp. Mm. ci dine ko wax. Mm. ka jiiñ ka jiiñ. Mm. yaa war preuve. pour firndeel ni li nga wax am na. doo nit dara di xaar si moom mu àndal ay preuve. lu ko laaxatu. defe naa ni benn yoon lañ ko fi gis te ñëpp ko ŋaññ. te loolu la preuve incombe au demandeur. parce que dafa violer les principes euh, jëm si. Euh, Cour de répression de renversement illicite avec le renversement de la charge de la preuve. Mhm. defe naa ni ay kon bu ne parti démocratique sénégalais à travers preuve ko du sur le plan politique ñu ko. Mhm. conseil constitutionnel sages ñaar leen ko mhm. ak c'est une question que je pose hein. damay analyser rek ci coron deux deux yooyu si nag lan la mën a taxaw bu juróom yi bañee bu dee dañoo def réunion boo xam ne c'est une réunion collégiale les set néew néew ma nag am nag wala amul ndaxam nit moo jiiñ man dama gëm dara itamit mbir la boo xam ne dañ ko war a leeral ba mu leer naañ loolu laa gëm donte le damay fàttali toujours que jiiñ moo war a andi ay preuve mm. waaye tamit juróom-ñaari euh, euh, sage boo corrompre ñaari defe naa dina jafe itamit juróomi nga wax ñu war a wax ni ah ñii de jàpp gars yi jàpp leen si rek suñu waxee li ngeen wax loolu. Mm-hmm. wax naa ni <laughs> <laughs> waaw te day daal day daal ëpp ñu ah, wax na ko moom solo waa parti démocratique sénégalais seen mm-hmm. militant ak seen président ñu baal ma ci kàddu gi. Mm-hmm. pour yëpp du yëpp wala pour tooñ mais Karim ne doit pas être lâche. comme na ko tubaab di waxee. juróom 2016 ba léegi. ay militants ak ay sympathisants ak ay mag ak ay ndaw ñoo ko nekkal si naaj gi. xeex nañu dóor nañu lacrymogène tëj nañu prison ñenn ñi gedd nañu toog. ñen ñi dematuñu am na ñoo xam ne transhumé nañu. kon boog moom dafa war a jël roppalaan comme ni ko fédération nationale des cadres libéraux rappelé dans son dernier communiqué ñibbi si Sénégal porter le combat. Mhm. étant donné que mooy le principal leader. c'est lui le candidat. Mhm. du parti démocratique sénégalais et de ses a ñibbi si mhm. ànd. ak ñi mu war a àndal si biir kuje ki bu dee am na ñoo xam ne gëm nañu ni ñoom combat bi ñoo ko bokk ñu àndandoo combat combat ñuy combat. doo toog Qatar nag boobu ba léegi si communiqué bi nga xam ne parce que tey jii nous vivons une sorte de karma xam nga karma. Mm-hmm. une sorte de réincarnation des faits. parce que ay nit dañ doon wax dara. comme nous ko vocal bi sank waxee. wa mhm. ila ay nit taxaw dinay injustice la ñuy dund. Mhm. pour véritablement jàkkaarloo ak ñi nga xamné injustice. mais dañ leen doon le parti démocrate sénégalais dans dans l'un de ses derniers euh, communiqués a appelé au regroupement des forces vives des militants sympathisants a appelé au combat et À la résistance. Hein au combat et à la résistance bërki démb ñu ko doon wax dañ leen tam ay terroristes ak ay salafistes. réincarnation des faits. tey ñu ànd ak parce que nous, tax nit ni muy waxee ak ni muy selon des contextes. et des situations au Sénégal politique droit bi dañ koy selon selon. moo tax ma la par moment on a l'impression que certains veulent que le droit soit mis sous mandat de dépôt. De droit. ah oui. Quand de kaso directement. le droit. Certains veulent que le droit même soit mis sous mandat de dépôt. On interprète à gauche ou à droite alors que le droit est droit. Pas le droit, où il est nga ko et c'est des textes. man ko man dama mm. invalidation bi ay la man daf ma même ni ñu wala ñi nañu sur le principe la commune par jour. Mm-hmm am na xëy na lenteur administrative xëy na ay la yoon bind na. Hmm. xanaa Karim yebul waa PDS. Hmm. bay toog hmm. au dernier moment di jëfee jëf loo xam ne dañuy invalider candidature xam nga loolu wax naa ko fi. waaw mais tey nii du moom moo yore bigu bi signé décret boobu. mais nag le principe reste le principe su fekkee dañoo yem si principe. c'est un principe constitutionnel il faut être exclusivement de national sénégalais. interprétation nag moo ma may ma waxee noonu. keneen am na beneen interprétation. mais le dans tey jii nii fu ñu ne corrompu y a le corrupteur mm-hmm. te waa parti démocratique sénégalais defe naa ni ñoom Amadou Ba la ñu ciblé. waaw moom la njëkkoon Karim waaw moom la moom la cible Karim. Mm-hmm. moom la tudd. parti au pouvoir parti au pouvoir ànd ak PDS. coalition au pouvoir ànd ak moom ci loolu ñu teg commission d'enquête. ca assemblée waaw. waa léegi la cible. c'est qui la cible c'est qui au finish. moo ma jaaxal. non la cible. La cible, la cible, avant même de parler de repos mais la cible pour certains, pour moi, c'est Amourouba parce que pour moi, la première opposition d'Amourouba c'est dans la paix et dans le Bénin. Est-ce que tu as dit Amoudouba, ak tab di njiitam qui ji amul dualité au sommet le la oui àndandoo pour mener a gañe il a dem nañu ba ci bir ay xew xew am ca hmm. parce que t'as dit vous bu une commission d'enquête bu fekké ni commission d'enquête bi mi ngi di xaw leerlu mais fu mhm. dépôt de motion de censure oui PDS lëkkaloo euh, Benno. oui day jàll majorité. Mhm. absolument mhm. motion de censure bu amee gouvernement day daanu. Le gouvernement bu daanoo bu fekkee ñoom seen cible bi changé wul. lan mooy si mise en branle de la haute cour de justice après mise en accusation à l'Assemblée nationale. pour mën jëm si lan. pour pour non non quand jugement condamnation jugement. oui jugement bob, nak conséquence loolu le report moy le report te te na sax forna dem ci ay y a une rencontre bo c'est chez un leader. pour justement préparer cette motion de censure. donc parce que parce que man la dernière sortie de Amadou Ba. Euh, vraiment, euh, euh ça doit interpeller tout le monde parce hein? qu'il a insisté à ce que toutes les conditions sont réunies pour qu'on ait l'élection. élection. Les gens sont, que en train de, de, dire report, report, mais Mom, il va aller à cette élection. Non, est-ce qu'il y a une dualité mais, mais, ça, se sommet Mais ça dualité, aux yeux, Mohamed. La dualité, mais Ablaye non xana gaay yi sax. mais euh, Mohamed non Sénégal gaay xana gaay sax ñu lool. Mohamed oh, Sénégal ñaari kabu xanaa sax ñu. kabu report ak kabu ah. non. non report Mohamed. waaw au pays au pays des aveugles. oui les borgnes sont rois. et actuellement si je n'ai pas borgne. Mm-hmm. c'est-à-dire que doo gis dara. Ah. te jamono ji nak

Euh, quitte à ce que sax report am il faut qu'on tisse cette affaire au clair. waaw mais dëggoo ça veut dire que ne kon bon je sais pas. l'objectif premier c'est que lëkkaloo j'ai toujours défendu ici ak lu mën xew. Mohamed dégguma ben patch. Mohamed bu wax wax waxu report. Mohamed lëkkaloo bi. lëkkaloo bi ce n'est pas c'est pas fortuit. très bien man looloo ma mais non PDS. oui ben du côté de l'Assemblée ce n'est pas fortuit. c'est ça. il y a forcément des intérêts. l'objectif ils ont des intérêts communs. ça mm. le premier intérêt intérêt pour Karim. Mm. c'est de pouvoir se donner les moyens de participer en sa qualité de candidat. mais l'autre deuxième le deuxième intérêt mm. c'est la première opposition d'Amadou qui est dans la période, qui est dans Beno, qui veut également un report pour créer les conditions d'un choix, du choix d'un autre. Voilà. Alors, Omar, sur la question. Euh, la politique, c'est l'art de faire des, compromis, euh, sur, sur un contexte donné et déterminé compromis compromis des fois des mais compromission. oui là c'est l'art de faire des compromis et non de de de compromission. mais euh, la aussi. oui. à moi Je wax nga parce que tu euh, as la Tu ci bis euh, on est mardi non c'est le 30 la le 30. c'est le 30. donc la campagne elle s'ouvre officiellement quand. vendredi normalement le 3 donc pour moi, Karim vous na poser acte mhm. ça c'est un. Le bi ma dem qui législation. je me suis posé la première question L'autre, L'autre Karim réglé la question de la nationalité en 2019. 2020, 2021, 2022, 2023. Je me suis posé ces questions parce que je veux rester euh, objectif. absolument. Benen, bi. oui. Euh, pour nationalité en France c'est un régime déclaratif c'est-à-dire beau défait, déclaration de renonciation à ta candidature à ta nationalité mu def ko mois d'octobre 26 hmm. octobre mu ko def. ci système français boo ko bindee bu décret bi di wàcc duñu considérer bis bi décret bi wàcc mais dañuy considérer bis bi nga. déposé defee dépôt bi